kon tey lu ñu doon wax ci àdduna bi yépp Macky Sall ku sëkkat mu tëj la ñoom c'est des jeunes dañu war a ubbi seeni ay ginnaaw dañu war a yaatal seeni ay ginnaaw ku jiitu xaj dalay bëw bul sonal sa bopp ku jiitu xaj dalay bëw mënuñu toog tey benn Sonko nekk au pouvoir wala benn jomaay fay nekk au pouvoir ku wax si ñoom ñu ne la dañ lay tëj munul nekk parce que dañ leen jox li nga xamante ni ñëpp a ko bokk ñu dénk leen ko faw ñu dégg faaw ñu dem nag jéem a raxas seen xol yi balaat seen xol yi ñu xam ne nag Sénégal Sénégal gu gën la ci réew yi bëri mais nii ñu gisee ñu commencé ko ci benn six mois sept mois ku wax ñu tëj la fii ak ñuy egg un fu askan wi jëm te yéen a ngi ubbi seen ay gët yéen a ngi ubbi ay nopp. faral baxna lol mais deug bu joté ni ñëpp wax deug kenn terewul kenn tëj mais ku def lu jar tëj ñu tëj la mais wax wax waxu politique wala lenen jarul tëj nit encore une fois parce que fi liberté d'expression Macky Sall amul lu mu déggul Ousmane Sonko amul lu mu yekul Macky Sall ay nitu Ousmane Sonko amuñu lu ñu yekul Macky Sall ak ministre ak juge ak journaliste ak kilifa diine ak kilifa aada ak lu mu mënti donc Sénégal comme dañoo jóge woon ci ay émeutes yu métti ñu jóge woon ci ay coow yu métti ba am ay bakkan yu rot ñu bëri ñàkk si seen bakkan ñii seeni magasin lakk ñii seeni kër yàqu dañu war a changer idée boobu ginnaaw bi nga xam ne libéré nañu prisonnier yépp ba ñu libéré Sonko ki Jomaay ñu waroon focus ci liggéeyal askan wi li tax askan wi woolu leen ba ne dañ fiy jële li fi nekkoon indi leen c'est parce que askan wi dañoo gis saaku ceeb dafa seeroon askan wi bëgg saaku ceeb yomb askan wi dañu gisoon ne que courant bi cher na askan wi bëgg courant bi wàññeeku askan wi dañoo gis ne que ndaw ñi amulu liggéey askan wi ne dañoo bëgg ñii buñ leen falee comme c'est des jeunes ñu wutal ndaw ñu liggéey mais nag lii ñu gis ñu commencé bu dee lii mooy projet Pastef nañu xam ne Sénégal dafa mel ni bateau buy couler parce que nag wax faw nit ñi wax wax moom faaw nit ñi wax te ñoom liñ fi wax nit ñi waxaguñu lu toll noonu bu nu xoolee rek YouTube lu Ousmane ko doon wax chaque jour nga koy dégg tey boo ko ko yekkoon mën na gas kàmb dugal ci boppam. donc bu ñu demee ba des journalistes Cheikh Yérim Seck international amul ñu leen xamut ba ci France ba ci Amérique ba fu ne ñuy déglu seen ay information jékki-jékki bu ñu waxee dara si Ousmane Sonko même bu dee c'est des fausses informations porte parole di gouvernement na génn def communiqué ne Cheikh Yérim Seck en tant que journaliste wax nga lii wax nga lii wax nga lii état bi weddi na la bu ko defee askan wi xam fa dëgg féete mais mënuñu ñëw bu dee dañoo ne état bi lekk na 1000 francs rek nga jàpp ni tëj bu ñu nee Sonko am na ñetti jabar rek nga jàpp ni tëj bu ñu nee dëkk bi métti na rek nga jàpp ni tëj loolu yorul adduna bi loolu yorul nguur yàlla sunu borom mu ngi ubbi ay gëtam chaque jour benn Ousmane Sonko def lu mu ko war a mën a faatee te faatu ko yàlla mu ngi ubbi ay gëtam chaque jour Diomaye Faye def lu mu ko war a mën a faatee te faatu ko yàlla mu ngi ubbi ay gëtam di gis askan wi ne lëmb di def chaque jour lu mu leen mën a faatee te faatu leen parce que yàlla du dictateur yéen nag ngeen yor rek nguuru adduna bi bëgg doomu aadama bu wax ngeen ne korbal dem tëj si des pères de famille école mu ngi ubbi ñu ngi war a toppatoo seeni ay doom ñu war a jàng ji école jamono mu ngi métti ñu ngi war a góor lu daw dépense pour jox seen famille yéen ngeen bëgg tëj ñooñu yéen ngeen bëgg seeni ay famille libre seeni ay jabar di voyage yi seen i ay doom di voyage ay jabaru jàmbur du ñu dem fenn ay papa jàmbur il faut que ça cesse nag lii jëmul kër lii jëmul kër te tee na xel fi ñu jëm si senegal ëllëg fii ñu jëm Sénégal ëllëg lii ku ko àttewut léegi di ko àtte ji du yàgg dëkk yi bëri ci Afrique lii moo ko taal mooy am ñu ñëw bëgg faat ay nit bëgg noot ay nit bëgg ne kenn du wax faaw am ñu wax na faaw am ñu wax ñoom bu dee la passé dañ ko jàpp ba léegi seen biir xol ba képp koo xamante ni peut-être bokkoon nga si ñi leen doon teg loolu la passé ñu ne dañuy am règlement de compte ak yow sénégalais yi baye boo ngeen xam ne torox ngeen ba faw xam ne ñii ñëwuñu nag pour liggéeyal leen sincèrement parlé jamono jii ñuy wax ak yéen démb maa ngi gis Liberté 6 camion citerne di séddale ndox maa ngi gis Pikine camion citerne di séddale ndox maa ngi gis courant bi mu ngi coupé du matin au soir maa ngi gis nee nañu courant bi facture bu nekkoon dix mille woyafal bi jamono ji trente mille sax ngay recharger du loolu taxoon ngaay fal leen ñépp a ngi jooy si benn six mois bu ñu ne woon mbir mi neex na waxuñu bu ñu tëj kenn ku sàcc alalu réew mi nañ la tëj ku jalgati yoon nañ la tëj mais en politique président dina dégg premier ministre dina dégg directeur dina dégg ministre dina dégg nit ñi moom bu ñu doon tëj ñëpp di tëj ci kaso bi it am ñu wax tamit parce que li ngeen doon xeex démb mënu leen tey xeex ba nit ñi wóolu leen teg leen au pouvoir ngeen bëgg jël li nga xamante ni Macky sàll sax tegu ko woon ci jàmm Macky Sall journaliste yi wax nañ ko fi lu ne lu ne ba ci politiciens yi naka la ñuy jëmee ci ay élections législatives bientôt élections législatives fii ak un mois parce que mois de novembre la dugg nañu octobre un mois des élections ngeen bëgg woo ay Bougane Gueye Dany convoqué leen suba lu Bougane Gueye Dany def il est politicien Bougane Gueye Dany ñëpp xam nañ ne que yor na ay médias dëgg la mais dafa ubbi tamit parti politique am te ku ubbi sa parti politique am nga droit di wax ak ay politiciens comme nu Sonko doon waxee ci Macky Sall di ko wax si Mame Mbaye Niang di ko wax si euh, euh, Mamour Diallo di ko wax si ñeneen ak ñeneen ak ñeneen laa nag nag vraiment mbéjum kanam borom moo koy fayal boppam te askan wi il faut ñu am fulla am fayda xam lu ñu leen waxut sincèrement parler parce que dañu jëm say élection législative yaakaar naa ni askan wi lii war na leen yee que ñii bu ngeen leen joxee assemblée nationale bi bu ëllëgee di ngeen dóor seen loxo ci ëkk parce que c'est des jeunes te ku wax jeune xam ne xol bi day ndaw day am xadar lii lañ leen doon wax que bàyyi leen mag ñi ci réew mi parce que max souvent du fayantu max souvent dinay am yermandé mais bogan lan la def bañ ko wara a convoquer suba à la police lu mu def Cheikh Yérim Seck mii lan la fi wax lu wara a mën a tax tey ñu def ko garde à vue place am nekkul garde à vue te buñ ko defee garde à vue suba lu mu dee dee ñu ko si procureur tej ko kasso pour quelle raison parce que andout ak Sonko te yéen ñep yéen ngoy gis ci plateau yi yéen a gis lu Bougane Gueye Dany di wax ak lii nga xamante ni euh, mooy Cheikh Yérim Seck lu ñu wax ci TFM mooy senegal gi dafa métti dëkk Afrique yëpp Sénégal la si rawoon waaye fu mu toll nii dëkk Afrique yëpp si six mois léegi Sonko ki Jomaay tax nañu senegal jël na ndaare ci dëkk yëpp nag léegi nag pour nit ñi fàtte seen coono yu ñu nekkee seen musiba yu ñu nekkee dañuy naan dañuy ñëw di xoqatal nit ñi bu ko defee ñoom bu ñu doon lekk nit ñi sax kenn du wax du loolu nag donc nag armée bi ñu ngi fi police ak gendarmerie ñu ngi fi lii bu naree wéy moom barki yonente yàlla Mohammed na coup d'état am Sénégal militaires yi jël réew mi jël politiciens yëpp teegal seen ndey ñoom ñëpp dugal ci pax nañu wante dëgg nag parce que trop c'est trop trop c'est trop parce que mënuñu yore réew boo xamante ni ñii di politique genn on est 18 millions de sénégalais ñii di politique 5 5 millions 18 millions de sénégalais politiques di politique mootuñu 5 millions kon plus de 10 millions yëpp politique wuñu xamuñu politiques politique politiciens yi bëgg jël Ils yi une université de CI de université ba de luy politique pour un Sénégal meilleur politiciens utiliser nos justice ay politiciens bëgg utiliser suñu police ay politiciens bëgg utiliser suñu gendarmerie ci ay réglement de compte ku def nañ la nañ la teg si yoon mais am na yoo xamante ni c'est terre à terre barki démb nee naa leen commissaire Keita c'est un commissaire de police koo xam ne jaar na Bango nekk militaire dem defi formation ba servir sa nation kooku ñëw toog rek te micro ne Sonko ak jomay dégg naa dañu doon xulo palais lolou lu ci tëj nit Sonko ak jomay dégg naa ñu ngi doon xulo palais nañ leen waxante deug Sonko ak jomay ñu ngi doon xulo palais lolou lu ci tëj nit qu'on se dise la vérité ñu arrêté de faral xamna ni bëgg ngeen Sonko wala jomay mais bëgg leen yalla moy deug Sonko ak jomay ñu ngi xulo palais mais lan motax ñu ne ministre de la communication wala chargé de la communication de la présidence pour nit bu génnee am lu mu fenn ci palais bi mais koku génn dindi toumay am ngeen page Facebook bu commissaire Keita génnee ne Sonko ak Jomaay euh, ñu ngi jote bir palais mais communication bi ne bind sur sa page Facebook wala Twitter ne gis nañu am ñu ne Sonko ak Jomaay jote nañu Sonko ak Jomaay ñoo bokk nday ak bay nit ñi lire xam fu deug fété jamm ne ñooy mais loolu lu si garde à vue nit ba di yóbbu nit kasso ban Sénégal la nu nek des pères de famille ay nit yu représenté Sénégal lu commissaire Keita defaral Sénégal Ousmane Sonko defut virgule bi qu'on se dise la vérité lu mu def ban table de banc la Ousmane Sonko mës a jënd biir Sénégal ban garab la Ousmane Sonko mës a jëmbat ci biir Sénégal ban kër la mës a peinture biir Sénégal lan la def commissaire Keita nekk na fi police lu mu dee dee yàgg na dem defi raafal lu mu dee dee yàgg na gis agresseur mu jàpp ko ko il a servi sa nation donc ñooñu mérité wuñu tey sen place nek ci kasso bi mérité wuñu ko jékki-jékki tay ki ñu tëjoon Suzanne ne Sonko wala jomay dañuy fenn dañuy fenn dafa jara a tëj nit kasso dañuy fenn te ñun Europe bi fi nga nek sa dom sax mu ne la papa tu mens sa papa bi la jur nga ne ko tu mens yow nga ne ils ont menti te ils ont menti c'est vrai qu'ils ont menti parce que ñoo ne woon Sénégal gi di ak 2 mois buñ ko jëlé dinañu defar réew mi ñu dara lolu fenn la non fenn la wala du fenn ñoo ne woon bu nu faloo dañuy def appel à la candidature toog na def ñu appel à la candidature ñu ngi jël ay nit dof ak ay kilifa ak yu kenn xamul loolu fen la wala du fen wax de mais dëgg bu jotee dañu anti dëgg fen la ils ont menti Ousmane Sonko moo ne woon caisse noire amalul njëriñ bi askan bu nu faloo dañ fiy dindi caisse noire léegi falu nañu dindiwuñu caisse noire loolu fen la wala du fen nit ki boo waxee dara woo say wax tu as menti nan lañ ko mën dulul sëñ bi nga ay nit ay politiciens politiciens dañ leen gënal yàlla wala dañ leen gënal te politiciens leen jox 1000 francs ngeen seen kër leen seen doon démb ak barki démb lañ ko inondation Sénégal école ngi ak une semaine ngi nañ ci dërëm na sax lu fukki dërëm suukar bu ñu dem ne wàññi nañ ci juróomi dërëm yokkaat na cent cinquante franc courant moom waxi noppi kañ ngeen gëj a gis rek camion citerne di dugg si koñ yi di leen naan am leen ndox pour pour lu ngeen naan deux mille vingt quatre ñu waroon jékki-jékki sax di am ndox bu sell di taw ñu koy naan ñu jékki-jékki ba ay ndox di coupé ñu dem ba FMI commencé wax ne que ñii nu ñu teewee réew mi dara doxul. ñu ne kenn du wax mel ni réew mi dañ ko doonu seen papa wala seen yaay réew mi c'est le Sénégal de tous les Sénégalais xoqatal bii ñu bëgg a euh, euh, planté ci biir Sénégal nag du jàll. parce que ñun ñëpp gis nañu dañoo jógee deux mille vingt et ba deux mille vingt si ay événement yu métti dëkk sous région bi yëpp teg bët Sénégal ne Sénégal gii dina tàq comme nu Mali tàqee comme nu Burkina tàqee comme nu yeneen réew yi tàqee. alhamdulilahi rabbil alamin sunu borom def ndox bu sedd biir Sénégal ba Sénégal tàqut mais fii ñu jëm nag Ousmane Sonko bu dee defa bëgg continuer bëgg a taal Sénégal na ko wax tamit nit ñi parce que lii tamit mënut wéy lii nii nii nii nii muy jëfe mënut wéy mënoo ñëw def fi sa yu ne weng police nga saaga gendarmerie nga saaga justice nga saaga xam Diallo kan ma ne ko xam Diallo magistrat da ngay fen les vidéos sont léegi benn commissaire Keita ne Ousmane Sonko wala kii jote nanu loolu nga tëj ko si est-ce que vous trouvez ça normal vous trouvez ça normal Bougane Gueye Dany tamit dégg naa ni jox nañ ko convocation suba pour lan parce que mu ngi wax ak Sonko dëkk bi doxul loolu mooy réew nit amul droit wax Sonko lu mu bëgg daal bu kenn ubbi gémmiñam même ñi ko faloon ñu ngi gis ñu ngi galère ñu ngi sonn mais yéen ñi ko faloon sax amu leen droit ubbi seen gémmiñ ne Sonko doxul ku wax ne réew mi doxul sax ñu faw ñu faw ñu wóolu police pour quelle raison lii raam nag si ñax bi la jëm lii buñ ko bàyyiwut barki yonent yàlla Mouhamed dina julli dinaa ñaan coup d'état moom yàlla na am biir Sénégal barki yonent yàlla Mouhamed billahi coup d'état yàlla na am biir Sénégal militaires yi jël réew mi toog si mooy si tëdd si santaan politiciens yëpp wuti tool béy politiciens yëpp wuti ji tol béy te bu boba Ousmane Sonko day son parce que bëgg na jël vie yëpp defaat ko politique. impôt et domaine la nekkoon bu mu nekkee impôt et domaine nekku fa secrétaire nekku fa directeur nekku fa adjoint il était un simple nit ku ñu doon fay salaire tojul fenn jékki-jékki ñëw victimiser wu si kanam sénégalais yenn sénégalais commencé ko yërëm mais fu mu toll ni mu ngi tok si xeefu nit ñi qu'on se dise la vérité mu ngi tok si xeefu nit ñi lim ñu doon dig yëpp lu si bëri ay fen la ñëpp xam nañ ne ay duul la ay fen la respecté wul il faut nag ñu bañ ñu yëngal wax dëgg fa yàlla il faut ñu bañ ñu yëngal xam ne doomu sénégalais yi doon wax démb ak barki démb ba léegi ñu ngi fii toog te dinañ wax nag bu ñu toogee suñu ruq di suivre suñu réew parce que bëgg nañu suñu réew am jàmm suñu réew am salaam ñu ngi doog a toog sénégalais yëpp jàppale leen pour ñu liggéey mais bu nu liggéeyee ñu gis li nga xamante ni ay faay la sénégalais war na nañu mën a génn ne lii kat jëmut kër ñoom ñu war a defaat seeni rido ne ah sénégalais yi de ñu ngi naan lii jëmut kër est-ce que duñu defaraat suñu toogaay est-ce que duñu defaraat suñu toogaay balaa lu dal Macky sàll dal ñu mais yow ku wax nga ne ko da koy teg pour quelle raison les Bougane Gueye Dany la c'est des de famille dañu yor seeni ay société di jël ay sénégalais di leen di employé ba si Zik FM ba si seen journaux yi ba si seen rajo yi ba si seen tele yi ñaata père de famille ñooy jóge seen i kër xëy si ñu fay leen salaire ñu dundal seen i ay doom seeni i doom yooyu ñu dundal seen i njaboot léegi ñooñu la ñuy bëgg di jàpp di xoqatal fu ñu jëm si Sénégal gu dëgër gi si Sénégal gu métti gi jëmul kër. man nangu naa ku toog fii andi loo xamante ni mën na màbbal Sénégal wala mën na rey sénégalais kooku nga woo ko tëj ko si kaso bi mais koo xamante ni toog ne Ousmane Sonko mënu leen koo xam ne toog nga ne Diomaye Faye du ngeen doxal mais ngeen neen ñun dinañu doxal ana communication